xam nga sëñ Muntaxa day day ku baax eh, moo lay waral ne ñoom dañoo war a moytu seen bopp ndax man li ma gëm ci douze heures de temps fukki waxtu ak ñaar loolu dutu dutu nekk lu ñuy tudd ci fukki ak waxtu ak ñaar loolu doon na jeex kenn dutu ko tuddati kon bu demee ba muy répété wu ñuy dem di dellu si di am ay accès di dem ak dugg am na lu bari lu ko waral waaye bala maa expliqué lu ko waral ma wax la tuuti ci ñooñu ngay woowe ay cantaakun am na ci ñoo xam ne gëmuñu sax sëriñ Touba bay gëm sëñ Muntaxa ndax li ko waral li koy li koy li koy li dama am ko xam ne nii daf maa jege mu am rak ju mbokkal mag ju mbokkal ndey ak baay muy taalibe Béthio man sama wajuru wu jigéen sëriñ Modou Bousso Dieng moo jur waaye dafa amoon diggante ak moom am na lu ñu déggoowul woon mais xam nga kooku ban ban question la ma poose ne ma dégg bi sama waajur woowu génnee àdduna mu ne ma dégg naa ne euh, sëñ Modou Bousso Dieng sax euh, Béthio la jubawul woon ba moo ko booleeg tànk bu buy metti ba mu jóge fi waxuma la doomi sëñ sëñ Modou Bousso Dieng taaw sëñ Fallou bi mu doon waaye lim liggéeyal sëriñ Touba ci jumaay Tuubaa ji bi mu bi mu bi mu bi mu amee ndax bi ko fi sëñ mu Moustapha bàyyee jumaa ji bàyyee ko sëriñ Fàllu ñëpp dañoo takku ku nekk dem sanc dëkk ci njaboot yi di bay di indi moom da doon def bu bayee ba at bu jeexee mu dajale li bay ak ak gerte geeg mbo lépp ak fas yi ak machines yi jox sëñ bi àddiya mu def ci jumaa ji mu xaar ba nawet ñëw mu wutiwaat fas ak machine ak yu muy bayee doo ko commencé waat ndeke bu masaana ñëw sëñ faal du ko daan ber ci benn sooroor ba jamono euh, egsi kii bi sooroor bi noppi sëriñ bi euh, xamal ko ne ko xoolal ci sooroor yi ban moo la ci gën a neex boo ci doon tànn boo ciy tànn mu ne ko ah man de bu féeteeg yow lu féeteeg yow moo ma gënal te moom da ko doon wax noonu rek par hasard ndekete lu mu a am lu mas a indi foofu la ko mu ne ko rek soorool boobu yaag sa ñoŋ ñeena ko liggéey kon bu dee eh, bu dee xet ma liggéey ci yoonu sëriñ Touba xam nga kooku moom waxuñu wax Béthio ndax Béthio moom bokkul ci yoon yi eh, xéewal ak sëñ bee moo moo moo moo laaw ba egsi ci moom mu mu mu mu mën a barkeelu ci ci ci yëf yi ba mel ni mel kon bu ay ku ñuy wax ay di jàllu benn xale bu jigéen ak ay gaayam yoo xam ne ay xale yu dëkk ci Ndakaaru gi ñu xam ci système yi ñu nekk bu ñu àggeeg foofu sëriñ bi rek xam nañu ñun sëñ bi moo moo moo moo am aw melo wu yërëm leen yërëm bindee fii moo tax muy doxaleeg noonu waaye loolu nee naa la ci 12 heures de temps la doon réglé kenn du ko dégg Sénégal man loolu laa gëm te loolu loolu moo war a nekk sax